waaw kon nag boo duggee avion Babacar da ngay mujj waa ci dox xataa ne président de la république ci dox la jëm dox mooy dox mooy wit bi nga xamante ni am solo loo mën jàpp rek ci dox nga jëm ma naa duggoo ci sareet dugg waral waral Jakarta da naa naan may ma fii laay yem mu wàcc nga doxal sa tànk loo mën a jàpp ci dox la jëm saa ko wa tariqatu Ahmadu Tijaani yi noonu la mel ci kawlu bi nag ma wax leen ko te dee boog benn yoon mësum mësum mbaar ah ma ne mësum mbaar waaw loo mën avion jakarta pasero may ma fii laa jëm dox gi sa tànk bu tànk bi amee problème am nga problème bu mag ci sa dund sa dara dootul dox bu sa bu alku ni ngay sooxee boo sàgganee ba ta ba ta sayru sare sooxee ko alku nga yéen yàlla musal ñu ci ñi ko xam xam nañ ko ñi ko xamul réere nañu ko kon su ko defee looloo tax tariqa bi nekk asiraato yàlla moo la koy wan siraato lu may firi yoon yoon lu cay dox tànk moo cay dox tànk ba mooy pratique u tariqa bi mooy tariqa bi mooy sëri bi nga xam ne mooy jël saro yóbbu ko tax daratul xëy bi بيالي وقت مجة سورة قل أوهي إليا نانا إلى من يتنا من رسول وطريقة بلك نما كن أفضل أقول لنت قيب ماكم من يالي دمكم من دلكم نيخ ينا نيخ يالي ينا نيخ يالي ينا نيخ يالي ننا دمكم دلكم نيخ ينا نيخ يالي الحمد لله لو تحرك كيف درك موتا شيخ موتياني موي محمد ماي داي عبد الله امينه maa la ko wax Mouhamed ay Amina ku ci mag Mouhamed ak Abdullah ku ci mag laa Mouhamed la Abdullah wala Aminata bu duroon Mouhamed Amina du am Abdullah du am kon nag koo koy magi Abdullah mooy magi Aminata boo tax day Aminata dafa gëlëm lu dafa dafa gëlëm ne ëmb boo xam ne noo gën a ëmbee gën a oyof noo gën a ëmbee gën a oyof noo gën diisee gën oyof jigéen liñ xamoon ci ëmbam bët bu set mu gën a diis ma ngi ca tëbliya ma ngi ca wëcc yëpp ma ngi ca tëdd du mën a jog ma ngi ca fonk ya ma ngi ca bambi aminatu bintu Wahab bët bu set mu gën a ooya ba Mouhamed jund ci kanamam waaw bët bu set nee na bi di jundoo diis gëma yëg ci sama jëmm su ma sañoon du ma wasin ndax ni ma oyatee bi Mouhamed ndax ni ma diisee bu Mouhamed juddoo ma ne ko ya xamoo li nga amoon sax xamoo ko euh, moom laay wax keroog ca gàmmu Madina te dama ne leen yàllaa noonu gis nga adduna bi ngeen dund nii suuf si ñu wax ne buñ ko juróon mu asamaan boolante leen yóbbu leen arach day mel ni benn melentaan lañ fa sànni arach moom moom matul kilo waaw arach matul kilo Babacar na moo la ko wax arach matul kilo foofu la yàlla wane yàllaam gi ni ko wane ci yim amal boppam أرف سيقطع المون نتلي أم الدروم نعرف كدينيت كنو كان بنا أم الدروم نعرف كدينيت بابيون بابيون بنا أم الدروم نعرف كدينيت لامب لامب بنا كونيم أب الدروم نعرف سما الدروم نعرف سوبي من يمين بين الدار أب بين أب أب نوم بوكا فيس يا مدرب كيلو بون نكو ينو دروم نتلي ينو أرف دروم نتلي ملايكم ملاكي ينو أرش inu géej inu orange moo dàq ak moo dàq lem ak suukar ku mu sa inu da ngay diis ba mu des xam ne tool arsi waaw ña yéenu orange ñoom seen inu ga moo dàq jaamu yàlla kenn mu ci fekk ci waxtu yeeg eh, sa explication Cheikh Matiyaan ibnu Sëriñ Babacar